Ha ha ha! a wax rek kuma dem ba gis mbolo mu melni rek limay may wax moy alhamdullilah ndax damay xam ne lii dal na xel ndax ngay nga nga ñëw kan ngay ligéyal nga ni la président Macky Sall pour mu am une majorité ñëpp genn jappalé la ci yaakaar na ne kooku askan bi dañuy wane ne kenn wu ko da bëgg nañ koo dolliwaat te dolli googu ñu ko bëgg doli dolliwaat ci ñun ñi jigéen ñi la ko yaakaaré ndax ñun ñii jigéen ñi président Macky daf ñoo teral sagal ñu taxawuñu ñun jigéen ñi rek ñun ñoo am sañ-sañ liggéeyuñu weer bu dee mu jox ñu. jàppale ci bourse de sécurité familiale yi. indi fi CMU bi. micro bi indi bi. di faj suñu njaboot yi. de zéro à cinq ku ci feebar doo fay un franc da ngay dem ñu faj la mu xam ne loolu loolu rek doyul mu indi fi mutuelle de santé yi. foo waroon a fay ñaari junni mu wàññi ko ñu ko juróomi téeméer kon yaakaar naa ne kooku amuñu fayam ñun ñii rawatina ñun ñii fii ci biir Thiès kaay nga xam ne suñu doom étudiants yi ku ci mësaan a am bac sa yaay dootul nelawati xelam du dal ndax Dakar lañ la daan yóbbu wala ñu yóbbu la Saint-Louis léegi am nañ fii université kon yaakaar naa ne loolu sag bu rëy a la ci ñun ñii waa cees kon yaakaar naa ne loolu rekk war naa tax président Macky Sall ñu mayaat ko deuxième mandat te koy jëlee te fu muy commencé élection législative yi ñuy jëm ñu fexe ba gagné ba am majorité à l'Assemblée nationale ndax mbébét bi mu am ci sénégalais yi yéene bi mu am ci askanam mu mën koo doxal waaye ñaanuma ko yàlla bu ñu xoolee. ba ñii nga xam ne joxoon nañ leen ko ba askan bi waccu leen ñu delloowaat leen ko suñu ëllëg kenn xamatul nan lañ koy doxalee ndax dinañu dinañu sacrifier ndax joxoon nañ leen defuñu lu baax ñu jëlee leen fi kon yaakaar naa ne suñu ñëwee di laaj yaakaar naa ne fàtte xaju fi diggante démb ak tey nag damay dégg ñeen nit ñi naan bu ñu waxee Thiès rek ñu naan Idrissa Seck damaa bëgg ñu xam ne Idrissa Seck jeexal na Thiès fii amatu fi dara génn na es yep daw na ba tok Dakaaru Ndiaye làqatu ci ginnaw Khalifa Sall xam nga lan moo des le 30 juillet inshallah allah ñu jël ay valise defal ci ay yere mu dellu dem togi Dakar wasalaam. dama deg barki demb lire ci ben journal Idrissa sek taxaw ni la vision de Macky Sall sa limite à Diamniadio ci olof nak vision moy gis-gis mais nak comprendre nañ ko parce que ab deuk bo ci dul ñew duñ la gis duñ la dégg mënoo xam li fa xew waaye leer na ko nañ ni chantier de Thiès yi fi mu leen bàyyi woon ak fi mu leen fekk du benn waaye ginnaaw moom Saint James rek la xam ak point E c'est normal que mu bañ a xam li xew ci dëkk bi mais ku ñëw auditorium xool SNTS gi ñuy suqali xool Ila Touba ñu naan deet nga jall ba ci AIBD xol ISEP xol université de Thiès bi nga xamni lolu ñu naan économie kinésienne manam bo euh, bo santé dara mu indi mbolo mbolo mi ku ci nek di lamb posam diko def ci dekk bi mhm. lolu moy économie kinésienne mhm. lolu da fay soqalim rew mhm. Idrissa Seck nag nekk na fi premier ministre defarul dara Thiès 44 milliards nañ ko jox carrière la fi bi pa carrière bi la fi tali ñu naan deb cinéma bi nga xamni ni pays yu Ouakam yëpp fukk ak ñet ku ci nek amone nga ci ben mu nekkon suñu fierté muy cinéma amitié mu indi ndëraan ni ko tasar toj ba pare lam fa tabaxone mënut a égalé ba tay Macky Sall moko égalé donc tay ji bu fekkenten dañ fi nek di lim li fi Macky Sall def Idrissa Seck dafa ru fi tarafatal ay ni parce que 44 milliards yoy cyber campus de la ci tabax ci digg Thiès. Super campus la ci tabax daf ko palem bu ñëwee dëkk ci biir kenn duko gis kenn duko dégg 2014 biñu def campagne électorale mak Idrissa sek ñoo àndoon fi Macky sek nek gor lol Macky Sall ni ginaaw Idrissa sek jappalé na ma ci élection présidentielle nañu investir wa réew mi ci élection législative ñu and ak mom di campagne Abdou Mbow ngi di ma dégg ñoo àndoon ak ay député ñu jóge fi dem Thiénaba dem Xombol ba ba ñu àggee njaayeen sirax Idrissa Seck ni mes dem ñibbi benn xeer nañ fa sànni nit ñaa ngi may dégg parce que ci télé laay wax benn xeer nañu sànni njaayeen sirax dëkku seen Sène Idrissa Seck abal ñu yeggalewul ba tàyyi ba tey ji yeggalewu ñaq tooy xepp ba am na commandé loon sama oto ni ma kii de du soreeg ñun parce que kii ñemewul naaj wi kon comprendre nañ li tax muy abonné absent réew mi nag léegi Macky Sall def bi parce que Réumi a parti la nek Sénégal gep ñu dem ba rewmi amatul ci région ñu dem di dem ba Macky le département de Thiès tay ji xam ngeen ni ci élection yi passé bo xolé scrutin def Macky Sall fi duma Idriss Seck ba donc néeg bi la yor waaw réew mi léegi néeg bi la tudd waaw néeg bi néeg bi néeg bi néeg bi néeg bi néeg bi néeg bi néeg bi ah te nag te nag ñun waa Thiès Ouest yàlla def na woon nattu dañoo am benn chance bu rëy boo xam ni yeneen Abdou Mbow mii dëkk Thiès Est amu ko chance bi mooy lan moy ñoo am chance de ndulli Idrissa Seck parce que ñoo bokk ak mom zone lolu rek source de motivation la may wax ni à Thiès Ouest y a 48 992 inscrits près de 6 000 nit yu bees yok nañ ci te ñooñu danaka bo xolé té am 18 ans 2004 ba Idrissa Seck di am doolé di bombé Thiès ak di nax nit ñi nekk ñu fi. donc amul benn relation affective bu ñu am ak nit ñi ma leen ñaan ku ci nekk dugg ci sa kër dugg ci sa nekk génn ci koñ bi organiser say jeunes parce que Idrissa Seck nag gënuñu dëkk Thiès fi nañ juddoo fi nañ yaroo fi nañ màggee li ñu am fii nañ koy defee lépp ba nag li ci ëpp solo mooy ñun fii nañuy yeewoo yeewoo ñu Saint James yeewoo ñu feneen fu fii ci Thiès gii kon nag dañoo am wàll ci dëkk bi war a takku bu mënee laaj ñu jox ko ñun ñu war a mën a laaj ñu jox ñu parce que Thiès gii nañ dëkk ah, kon nag nag ku nekk am sa Pastef parce que président Macky Sall lim fi def lim fi def laa wax de ci juróomi at boo xoolee 1960 bi ñu amee indépendance ba léegi président Senghor nekkoon ku baax fondé suñu république président abdou diouf ñew top ko ablaye wad top ci ñom ñep bo len les, bo xolé liñ def ci électrification rurale 1500 villages nañ électrifiés. Macky en 5 ans de pouvoir en 52 ans Sénégal 1500 villages électrifiés. fi Macky en 5 ans de pouvoir mu 1550 1595 villages yu multiplié kenn kenn mënta weddi ni courant bi wañé ko na kenn mënta mani ay jaxay ak ay jalañ ak yépp amatu fi ñëpp xamni Dakar ku ku waxal yalla xamni ni amatul inondation courant bi xuy kamacatul bi Macky Sall yéegee ba léegi xañ wañu ñu wañi nañ ci bu ñëk ba denrée de première nécessité mais depuis 2012 ba légui ben produit yokou fi té lolu ñepp a xam ne dafa laaj péréquation xaalis lay jël duggal ko ci biir prix pour que mu baña a ndax ndax yërëm askan wi. bourse familiale. bourse familiale jël la nako la couverture maladie universelle ngi nonu ak yenen yo xamni tay buñ ko fi doon lim. kenn du xam fu mu tollu de toute façon defar nañ ben vidéo vidéo bi dinañ ko def ci biir porte à porte yi parce que liñ naan lu ne fan kenn duko jeex dinañ ko wan nit ñi ñu gis bokkut ak ñi nga xamni sen seen passé daf leen rattraper seen avenir nek ci gannaaw ñu gis xalé bu tuti leen di def lo xamni ni nañ ko def demb ci defuñu ko ñi fi nek ñepp ay manko tas tass Sénégal ak manko tassare Sénégal ak ñoo ñepp en kase ak lu ñu seen poste mo leen taxa jog ils n'ont aucun programme te bu élection yi ñëwé kase nañ leen gis nañu am suñu fulak suñu fayda te xamni ni Thiès

ba bu ci ngoon ga Idriss sek ñu yóbbu ko retraite mu may ñu jamm parce que sonnal na waccès ma ngi gërëm di leen sant. ngi wax ne tay fi ci Thiès nit ñi dañu wara yew mu suñu nelaw mais bo bëggee ñu naan do déggé ñu naan dañu wara yew moy dafa am lo xam dafa fi wara jeex li fi wara jeex lan moy munuñu ñu dem élection bu jot nit ñi ñew nit ñew ne leen. wooteel leen ma ñu wooteel ko mu demaat ba élection ñëwaat mu ñëwaat di def mbeddu Thiès yi tey jii on n'est violent nekkuñu ay nit ñoo xam ne dañuy sooke xeex nekkuñu ay nit ñoo xamante nii dañuy engagé li nga xamante nii mooy waaye am nañu sañ-sañu nag ku ci ne fa nga dëkk parce que fii ku nekk sa kër am nga sañ-sañ bu fa nit ñëwee nga ne ko buguma nga fi ñew buguma nga doxantu fi buguma nga taxawalu fi lolu ça ne signifie pas la violence ça vie juste nga préserver li nga xam ya ko mom te ku nekk li nga yor dang ko wara préserver motax may wax ne dañu wara jël suñu responsabilité ties li fi président def dama len di wax ne ne serait-ce que aéroport Blaise Diagne nga xam dafa nek à 16 km de ties nek 50 km de Dakar nit ñi bu ñu gis ne aéroport bi 15 kilomètres de Thiès mais apparemment dañu war a xam ne dafa war a doon Thiès maintenant benn ëpp parce que aéroport bi bu tijjee li ñuy wax Thiès dafay doon benn ëpp maanaam képp koo xam ne wàcc nga ci aéroport bi balaa ngay dem Dakar Kaolack wala feneen cees ngay ñëw te boo ñëwee da fi fiy alal te alal jool ju mooy faire tourner l' économie et su boobaalee Thiès waa dañu ciy bénéficié wu. beneen mbir bi mooy yéen ñi dëkk fii à Mbour 1. xam ngeen le problème mu depuis 2009 am Thiès depuis pratiquement 2 ans 3 ans waxuma problème yi jeex na takk mais tey xam nañ la qualité de l'eau ak distribution bi l'eau, ne xam na ne yokku na te président Macky Sall def parce que bi mu fi ñëwee en conseil des ministres décentralisé dañu waxoon ne Thiès dafa am déficit de 5000 m3 par jour. Nous leen déglu ñu réglé li nga xam ne moom canal yi nga xam ne mooy distribuer ndox mi inauguré benn forage boo xamante nii fii la nekk te tey jii forage bi ñuy wax F11 mu nekk ci autoroute à péage bi commencé na émettre depuis deux moi non seulement dafa yokk qualité de l'eau mais dafa yokk la distribution de l'eau au niveau de Thiès te loolu président Macky Sall moo ko fi def beneen mbir bi mooy nga xam ne dañu yàgg a wax Thiès économie bi Thiès dafa wow yàgg ngeen ko dégg. su ma waxee ne li nga xam ne daf fiy injecté wu bu aéroport bi juddee juddee Thiès dafa dafa nekk léegi benn pôle universitaire te étudiants yi fii ñëw dañuy am ay bourse bourse yooyu ñuy am ci marché bi la ñuy jëndee saabu ci marché bi la ñuy jëndee bic ci marché bi la ñuy kaye ci marché bi la ñuy loué ci kër yi la ñuy loué loolu dafa doon xaalis boo xam ne ci état bi lay jóge di injecté wu dans l' économie des Thiessois muy faire tourner li nga xam ne moom mooy. l'économie de Thiès Benen mil bi nga xamante sur le plan économique président Macky Sall mi ngi koy neuf, ku ne chemin de fer dañ ko privatiser woon te qu'on privatise privatiser moi mooy góor gu màgget gi ci réew mi président Macky Sall bi mu ñëwee reprendre chemin de fer état bi jël ko non seulement muy régler contentieux mais muy fay depuis deux ans les travailleurs pour que entreprise boobu bañ a Gare nous ñu bër ko de ne gaaru Thiès boo fa demee marché bi pratiquement marché bi dafa dee mais gaar fu mu am dafay am économie buy tourner parce que dafa am ñuy jaay ndox am ñoo xam ne dañuy jaay ataaya ñii di jaay gerte ñii di def leneen ak leneen te loolu dafay faire tourner l' économie d'un pays président Macky Sall loolu la bëgg a indiwaat à di wax ne li ñu fi war a wax bëri na.